jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di leen eh, gërëm di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu sunu borom ak kattanam eh, tey ji yamoo ak eh, alxamis ñu dellusiwaat ci 30 minutes chrono ci solution info TV ni ni tàmm di ko defee saa su di nuyu ñëpp di leen gërëm di nuyu waa solution yëpp saa njóogu son yu bu waa Régie ah El Hadji Modou Euh, topp Ablaye ak euh, Souka ñoom maa jigéen Aïcha ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen euh, gërëm di nuyu fàllu du nuyu ñëpp Omar bun Xatab gi nekk ci kàddu gi tey jii ni ñu koy defee saa su ne di waxtaani actualité actualité bi nag diiru ko fanweeri minute ñu fa yéene ci ànd ak yéen mën nañ wax ni Sénégal moom xanaa bañ a wax waaye li heure boo xëy am loo wax te heure boo xëy tey ñu may la loo wax waaw loolu tax tey jii ñu tànn ay ponk appelu Mame Mbaye Niang bi ak Sonko ak gaawantu bi ñu ko gaawantu yóbbu ko le 17 fas yéene ko ne dañuy àtte appel bi le 17 di altine dinañ ci dikk dikk tamit ci génn Abdoulaye Wade beeg inscription liste électorale yi Idrissa Seck yooyu yëpp dinañ ci dikk bu ci xajee ak Assane Diouf tamit il faut que ñu wax ci parce que aussi warul doon loo xam ne dañ ci noppi ak anam gën ko téye ak nin ko jàppeek ak ñoomin seen dinañ ci dikk wax ci bu baax parce que euh, des fois dañuy wax lu àq rek ci li ñuy def ndaxte korog bi ñu koy def euh, ci docteur Magny Ngom danoo pare chronique bi diffusé ko deux heures temps après wala une heure temps après rek ñu libéré ko loolu la des fois yéene bi ñuy am rek mooy daal euh, di xeex injustice mais aussi tamit di wax lu àq ci rek yenn nii mun na am ñiy jàppaate diñuy juum ba duñ am yenn information yi ñun nag bu leen ci tanee ñu informer leen rek na leen ni ay ah, yoon wi ngeen jël baaxul loolu rek lañu ci jublu ndax réew mi mën a am dal ndaxte li Serigne Cheikh doon wax rek ñun way woo moom mën dama kaa mokkal maanaam réew mi amul justice la la fa nit di def parce que justice mooy loo xam ne tey jii mooy tax ñu ne euh, El Hadj du Omar Sanjogu ñoom ñëpp ñoo yem parce que balance la boo xam ne warul jeng maanaam borom milliard rek borom dërëm ñoo yem ci kanamu justice bu ñu demee ñu xool ku tooñ ñu àttee teg ko ci yoon. waaw loolu nag moo tax euh, ci kanam dinañ wax ci mbiri Assane Diouf mais dañ koy dooree rek ak li na cët na jonn mooy mbiri appel Mame Mbaye ak kii di euh, Ousmane Sonko mu doon appel boo xam ne nag ci diiru ko fukki fan ak juróom ginnaaw ban ko àttee le ñu doon xaar lu ne waaye ban ko àttee ca saasa rek man moom dara bettuma ci ci laa ne Sonko gañe na bataay waaye gañewul geer bi booy Sonko yi bari commencé jugule lu ne ju dugg ci man leen da ngeen xamul ñi ngeen ko seexal ñu ma la ma ne leen ay baadoola ngeen ko seqal baadoola bu jibee gàcce fekk tabiwute du am jàmm maanaam nguuru Macky Sall xamuñu bu ca yam xam lu ñu xam topp nit ba mu sës di topp nit di topp nit ba mu sës ba ci miir bi waaye bii nag dama gëm ni topp nit ni ñu toppee xalifa toppee ko Karim toppee ko ma Massamba toppee ko ma demba bii nag moom bu ñu juuf deful nang ci lay mbëkkee miir bi ndaxte Ousmane ko moom ab miir la ndaxte bu doon ni mën nañ ci moom ci dara bañ ko jëlee impôt domaine du doon député doon maire ba tey jii ñu naan mun na jël réew mi kon seeni pexe moom mun nañ ko am rek mais suñu borom moom beneen mbir la te yàlla nag moom bu tracé nga effacé mu tracé waat nga effacé bis boo tracé waate nga effacé boo defu nànk yow lay effacé kon Mame Mbaye Niang li mu dugg ndam a ngi ci gàccee ngi ci bu doon ni nag koo xam ne am na ay mbokk wala mu doon koo xam ne daal mu ngi science ban attee ci yoon ne daan na son ko deux mois avec euh, surtout deux cent millions jëm ci mbiri dommage et intérêt mënoon na yem foofu rek jubilé jël victoire am dem teg fële ndam sax du ndam ndaxte taxul ñu seetal ko ci mbiri Prodac ñu dem ba ci ngoon la mu bindoon mu dind ko neen day dem appel yóbbante galgal nag ubul làmb sañ na dem appel yoon moo ki ko may waaye procureur bi ci dugal loxoom lan la ci duggee ak lan la ci doon ndaxte bu dee appel Mame Mbaye Niang rek mënul tee Ousmane Sonko dem élection lim mën kay di ko laaj alal joo xam ne tey jii bu ko laajoon tey jii balaa ngoon xale yi dajale ko jox ko Sonko ndaxte ab bracelet bu Ousmane Sonko takk rek tax na démb rek ci xibaar 31 millions ñu dajale ko ci bracelet ci xaalis ma ngay wër dëkk ba bu xëyee ne 300 millions laa bëgg ñu def ko ba ne bëri na cëpp na lay la am na ku ne mën naa fay 200 millions yi. waaw te gëm naa ne honneur Mame bu dee dëgg dëgg la ci moom deram moom Mame Mbaye Niang honneur war na ëpp deux cent million parce que li Serigne Cheikh Mbacke Gaynde ma doon wax ba nekkoo ko diw dafa am ngor jaay ko mu ne ko mu ne ko non amul mosu ko am naxte ngor kenn du ko am di ko jaay mais dama gëm ni tam Mame Mbaye bu doon am na honneur du toll ci niveau di laaj xaalis wala mu naan day yónni UC xoolal paradoxe rek yi muy def jamono ji mu dugalee appel la ne day yónni UC ngir ñu dem saisir Sonko. maanaam kenn xamul waa ji lu ko dal maanaam wër di wax kenn xamul daal doo comprendre lan mooy motivation ak lan moo ko tax a jug ak lan la bëgg man xamuma ba léegi lan la Mame Mbaye Niang bëgg Mame nag bu dee di politique la ma ci waxoon rek man ba mbir mi di door laa gëm mooy gain politique rek la ci soxla mooy Ousmane Sonko baare na ko demul élection ñu ne Mame la maanaam li Macky Sall jëm ci moom sottiwul euh, keneen ak keneen jëm ko ci moom sottiwul man maa ko jéem ba mu sotti loolu la ci soxla mais du ci am ndam parce que Mame Mbaye Niang même bu Sonko nekkul loon candidat Macky Sall gañuwaat réew mi mënu ci doon dara lu dul am ministre kepp ndax amul niveau bu ko def premier ministre te Mame Mbaye tey ji bu ci dara desoon tey bu lu dul Macky Sall ut ab plan B Mame Mbaye mii du doon plan B wu Macky Sall ndaxte élection locale yi ci Ndakaar législative xam nga locale ci Ndakaaru ba mu demee gis na li Mame Mbaye am maanaam ci politique amul benn dayo boo li lay wan ni nag gain politique la ci bëgg beneen bi mooy dem toog ci ab tele non non man dama bëgg débat ak Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko buy am nawle ci réew mi kenn la mooy président Macky Sall mi mu demal élection en deux mille dix-neuf jël troisième teg ci nekk chef de l'opposition am dayo boo xam ne tey jii Macky Sall sax bu dee ni moo jiite réew mi mais bu dee ci côté popularité kii di Ousmane Sonko moo ko dayo boo demee ci réseau sociaux da nga koy sentir bu ñu génnoon ci mbedd mi di doxantu tey jii da nga koy sentir ak leneen ak leneen kon tey jii Mame Mbaye tuuti na ci di woo Ousmane Sonko ci débat naan ko ñuy débat bu ñu doon débat ci lan la ñuy débat Mame Mbaye Niang bu amee ki muy debaal ci mbir Prodac na dem jëli Birahim sekk mi ci bind téere Mata Amadou Ba mi toogoon wax ci ak keneen ak keneen moom bu dee mbiri Prodac rek la bëgg a waxtaanee mbiri Prodac moom mii tey di suba dinañ ko waxtaanee ndaxte ku mën a jël réew mi ëllëg fii ak dinañ ne ko alalu Prodac bi ñu doon tudd ci Mambay ñaa fan la féete dag ya di domaine abi agricole communautaire yi fan la féete léegi nag liñ bëgg leer na bu doon honneur am rek atte bi ci première instance dañ koy nangu mais ba atte ba daanoo lañ jël juge bi Keita xas ko lu ne ma jàmbal bind lu ne ci moom ci àddina lu ne mu teg ko ko juge bi Pastef la bokk juge bi Keita la sant juge bi yaayam Ngom la sant du yàgg sax man du ñàkk sax man mi sama yaay sant ngoom sax bu yàggee ñu bokk la maag Ousmane Sonko te bokkuñu dara wala Nafi Ngom maanaam yëfi dof yoo xam ne maanaam ku am xam-xam sax doo analyse jëm ci foofu ci diw diw la bokkal diw diw la bokk mais ñun dépassé nañ niveau boobu ci côté analise ak ci côté gëstu mais bu ñu demee ba ku mel ne ay majambal di descendre aussi ba des fois da ngay poser ay question lan moo xew ci procès en diffamation boo xam ne tey jii may leen leen délai maanaam depuis le trente ak bi ñu waree dugal appel bi weer mun na dox ci diggante bi mais bu dee danoo def appel bi ak ni ñu forcé loxo juge bi ba mu jox leen kayit gi mën a tax ñu def appel ak jamono ji greffier yi di defee grève ban greffier lan wañ loxoom ba lii lépp mën a am maa ngi dégg ci xibaar démb ni kayit gi ñu demoon ngir yóbbu ci décision bi kayit gi ban demee au lieu ñu def deux mois euh, sursis trois mois sursis lañ ci def alors que ñëpp dégg nañ ci bisu àtte bi ab avocat tubaab génn juge bi Keita ne deux mois avec sursis cent millions mais kayit gën jëm yable sax am na ñu ne trois trois mois lañ ci def lépp ci patam patam day mel ne yéene gi ñu am ci yéene daan Ousmane sonk ngir mu bokk élection loolu loolu fes na kon mbir mi nekkatul affaire code de procédure pénale wala code pénal mais mbiri code électoral la nan la def ba daan ko ci wàllu yoon daan boo xam ne sonk bu buñ ko ko daanee bu bu demee élection du mën a dem élection. wala day nekk ci diggante dem élection dama damay dem duma dem élection duma dem di ma dem maanaam indi jiixi jaaxa ci bopp nit ñi ak gaawantu bi maître Assane Dioma Ndiaye nee na temps bi ñu jël sax pour def appel bi ak war fi àtte appel bi sax du yoon waroon nañ bàyyi weer wi jeex pour que ñu xool avocat Sonko yi lan mooy seen réaction ngir appel bi ñu mën ko jéem a xool na lay àtte ñaxte ñaata appel ñooy ñooy euh, nalaw ci kanamu tribunal mbiri ba Barthélémy Dias yaakaar naa mi ngi cassation depuis dix ans ñu ngi koy topp atte boobu mënta jeex te foofu dana bakkan moo root ñu wax ci mbiri jambal Diagne mi wër di bind mbiram ak ko appel bi ñaari at a ngi mun ñu ko vider kii di Massata sàmb ak euh, kii di euh, Mamadou Niang di ay député pur ñoom am nañ fi ay jafe-jafe ak yoon ñu tëj leen juróom benn weer kaso foofu ngay xamee ni weer dafa yoon dafa jeng ñoom ñu leen coup et blessure volontaire maanaam dañoo yëkkati fitna ci nit gaañ ko jamono jooju ñuy wax loolu ci ñoom te amu ñaay ñi bi ñun gisuñu fu mu xoosu ci lañu ci lañu gis Californie mu jotee ab xale bu jigéen ñoo ne da ko doon jéem a violé waaye ku mujj ko violé coup et blessure volontaire la Californie tëdd weer te ñaar ñoo xam ne ñoo bokk li leen toppee te bu Californie sax moo gën a garaaw ndaxte gis nañ xale bu jigéen bu xoosu wane ay gaañu gaañu dem uti ab certificat médical teg loolu lépp ñu bàyyi ko fa ngir bañ a bëgg a xañ ay mandat wu député yi député yi ñu ne na leen teg ay daan tëj juróom-benn weer ñu def appel nee na le 17 bisu le 17 lan ne la ñuy atte appelu député pur yi mais affaire Mame Mbaye ak sonk ci lañ koy atte bu dee ne gars yi Sonko yi dañuy xaar rek yoon def liggéeyam ñu ngi nax seen bopp ndaxte ni yoon di doxee ci réew mi buñ ko yaakaaree dóor nañ seen loxo ci ëkk mais ñi ngi xaru ñi ngi yóbbu seen bopp abattoir parce que dama tey suba dama ne euh, pourquoi. la justice danse au rythme de Mame Mbaye maanaam justice bi rythme Mame Mbaye la jël mais ñaata dossier ñooy nalaw ci appel ñu war ko atte war ko vider mais attewuñ ko léegi nag mu laaj taxawaay taxawaay bi comme li ñuy wax mooy ci wàllu politique parce que homme politique Abdoulaye Wade la mu doon wax man dama ko gëm du taxaw ci ab procès ñu koy atte parce que ñi lay atte attewul la pour lu la neex da lay atte ngir teg la li neex buur loolu nañ ko xam parce que buñ bëggoon jàmm ban njëkkee atte ñu ne 200 millions dañ naan son Sonko demal uti 200 millions jëm a fay xaalis jàmbur waaye mën ngaa dem élection tey Ousmane Sonko diggante parrainage ak élection bu fay 200 millions dina feeñ ci moom ndaxte ku xam campagne électorale présidentielle ak enjeu bi mu am ci son Sonko nga xam ne day soxla alal ju bari alal jooju bu ci génnee 200 millions fay ko 200 millions yi day feeñ ci moom 200 millions poste bu mu jugee rek boroom yëg mais comme Mame Mbaye Niang am dafa am njëg pare woon nan pour fay ko deux cent millions mais lan moo indi patam patam ak gaawant bi yàkkamti juge bi dem uti ak greffier ne dañuy àtte Mame Mbaye Niang di ma fàttali mbiri Khalifa Ababacar Sall parce que Khalifa Ababacar Sall man moo ma tiital parce que Khalifa Sall bu ñu tegoon lépp ci yoon day doon candidat dem élection mais ni mu patam patamee ay mbiram ba xalifa Sall doo doonul candidat loolu moo ma tiital ci mbiri Ousmane Sonko kon fa mu tëdd bu dee dafa feebar na jóg. feebar na jug bu dee dafa damm na soox lu mu mën a def na def ñii xamuñu bu ca yam ñii xamuñu buur saay na xamuñu buur dee na leneen lan xam mooy wax ak ñoom ci wàllu politique tontu leen ci wàllu politique parce que nag mbir mi nekkatul mbiri justice mais mbiri politique la parce que nag bu doon justice dañuy respecter les procédures teg ko ci lii même bu Mame ñaar Niang dafay appel mais appel bi ñu teg ko ci yoon ba xaar waxtu wa mu jotee ñu def ko mais appel en diffamation dafa jar patam patam ji xoolal bisu procès bi Ousmane Sonko lan moo fa xew ñu ngi naan juge Keita Sonko la ba mais li mu def gënul ci Sonko ay avocat Sonko taxawuñu ñii di témoins yi Ibrahim Seck ak Clédor seen ak ñoom seen taxawuñu ay Aïda Mbodj ñu ñëw jël dogal contre Ousmane Sonko ñëw jël dogal contre Ousmane Sonko ci loo xam ne teewul une certificat médical. boo xam ne tey ji moo doon firndeel ni kii kenn war ko àtte ci bis ba mais bëgg a gaawantu procédure bi parce que ñi ngi dem élection 2024 tax ñu jël dogal bu toll ni kii di Juan Branco di ab avocat wala dugg ci dëkk bi ñun ko doo fi bokk procédure yi ñu violé ko kii di maître Ciré Clédor Ly di ab procédurier koo xam ne ci wàllu yoon ak tëralin da li mu ci xam ñi ko xam ci réew mi bariwuñu ne procédure ni ko jaaralee du yoon mu am ay vice de forme am lépp ñu bàyyi loolu lépp jalgati yoon ne atte noonu usman sonk Ousmane Sonko tey jii moo jekkoon ci def appel Mame Mbaye Niang gaawantu def appel parce que du ñàkk ne am na ñu ko poussé ne ko defal appel ñun gàllankoor waa ji appel boo xam ne ak honneur boo xam ne day tax réew mi ci benn bis mu ñàkk ci juróom-ñeenti milliards ni ko Mamadou Lamine Diallo waxee lépp na teg ñu jëm ci korité gi sénégalais yi tey jii damm nañ seen moral damm nañ seen tànk commerçant yi lu ne mu waroon xew ci réew mi ay fan moo des ci korité bisu laylatul xadri ñu bëgg a yàq feetu nit ñi dugal nit ñi ci lu kenn xamul parce que jàpp na ne bu ñu dee àtte Ousmane Sonko nit ñi dañuy tal korité dañuy tal lekk ak naan dañuy tal leneen ak leneen mais loolu ñàkk xam sénégalais yi la feeg yoon mu ngi dox ci yoon sénégalais yi mën nañ di jaar ci yoon mais yoon ni muy joxe nii lay lii kenn xam lu mu doon kon Ousmane Sonko ak i nitam. bu nu nelaw bay yandoor na nu taxaw la ma ko waxoon rek wax naa ko sama chronique bis bi bisu le 30 nee naa la ngembal saay-saay day yolom mbay du tas gars yi danoo saay-saay oo saay-saay te li jëm ci wàllu ngor ak ngar mi liñ ci am dafa bariwul parce que nit ki daf ci am loo xam ne bu la ko sa xel na maye sax sa ngor dala koy xañ mais malheureusement fi ñu egg xalifa egg faak euh, Karim Ousmane sonk na njort ni fa lañ jëm ak moom léegi nag nelawal ak somnifère yi nga koy jox di ko nalawloo la baña a lii foofu mu tëdd ñu naan dafa feebar dafa lii Ousmane Sonko man am na fu mu àndul ak moom dama ko mere woon ah Ousmane sa warul recevoir sa Seck man loolu laa gëm warul recevoir Idrissa Seck ñaa Idrissa Seck ay tànk jàmm lay dox ak lu ne ni Idrissa Seck koo xam ne depuis 2004 ak tey jii ci lan lañ ko xam mbiri deal mbiri protocole maanaam am na baat yoo xam ne ci Sénégal ci wàllu politique ci Idrissa Seck lañ ko xamee li may wax ni du xam nga ko mooy mbiri dil mbiri protocole protocole di Rebeuss yooyu yëpp ci moom nga ko xamee élection bu mu dem day lijjanti ba mu jël la jël lépp ci parcours am Idrissa Seck kenn du ko tudd ci lu rafet mooy waxtaan ak diw dil na te bi ci mujj mooy ñu jugee élection présidentielle heure bu nu mësaan dem élection présidentielle ci àddina élection yi bu jeexee da ngay gis sax ñu di opposition bi def recours ca conseil constitutionnel mais élection 2019 gisuñu benn recours nag te boobu nee waa ji mi ngi wax ak waxtaan ak kii di Macky Sall nee na mois ñi ngi waxtaan te kenn yëgu ko ñu xëy mu toog ñu jox ko conseil économique social environnemental mu bi yëpp dem ànd ak kii di président Macky Sall jii ñu xëy ñu naan Idrissa Seck dafa seeti kii di Ousmane Sonko. Ousmane Sonko di nangu loolu ñu naan non nit ki bu la seetee bu la seetee poson ku ko lekk dee waaye jege sax jege ko sax wóorul Ousmane Sonko warul jege Idrissa Seck ba naan li lañ wax ak li lañ waxul parce que seeni presse ñi ngi manipuler naan Idrissa Seck bi mu demee dafa jàkkaarloo kii di président Macky Sall kii di Karim Wade na ko euh, kii di ma jum Sonko doo doon xala fexeel ba élection doo doon candidat nga xaar ba beneen élection Idrissa Seck yabe na kii di président Ousmane Sonko. Ousmane Sonko ak li mu liggéey yëpp position bi mu am Idriss Seck da ko am bu doon ni rek danoo waxtaan te teg ko ci yoon nee na Idriss suba day génn waxtaan ak tas ko du xabaar yi mën na génn nettali loo xam ne ci digganteem ak Ousmane Sonko ñu bari dañuy jàpp ni Ousmane Sonko kat de da maanaam day waxtaan ci kaw day waxtaan ci suuf di xeex di xeex ci kaw parce que ñun suñu politiciens yi njëkk yooyu loolu la leen weddee woon de na Ousmane Sonko xam loolu seen yëfi tappale yooyu Ousmane Sonko kenn xamu ko ci ay tappale di nga tëb sama yaay da koy faral di wax la bu la bon tëwee rek del ànd ak ku bon boo bëggee yàqu rek del ànd ak ku yées kon Idrissa Seck Ousmane Sonko waru ko recevoir warut ànd ak moom ci lenn kii rëbb di yaan doo faale jiit fii ak 2024 ay weer ci des la nga muñoon ba tey ji kon neel di ko muñ sa sekk mi du régler sa problème mbiri Adji Sarr fii la sa Seck taxaw nit ñi di ko dégg mu ne non Ousmane Sonko nangul ni yaa def après moo waxtaan ak lii affaire tappale yooyu lu doon na viol doon crime. kilifa gu doy na usmaan Sonko di yootu réew mi ngir ëllëg kooku dina taxaw naan man maa seq ak di wala diw ak wala diw piège yi ni tendre usmaan Sonko bu mu nangu di ci daanu ji nga baaxam gu ëpp googu ku baax la de ku am itte la ku ku ibbeeku boo daje ak moom fii jox ko loxo dala koy jox boo nekk ko kaañu fotow mu du daw kenn du maytu kenn mais nag bu da ngay xam ne ci politique nga ne. ci politique nga ne daf ci am ñoo xam ne ñenn ngi ni man maanaam bul lu woykat bi wax bul lang ak ñoom bu nangu jël ndaare loolu laa lay wax Ousmane sonk bul lang ak Idrissa Seck bul lang ak Macky bul lang ak Ablaye Wade ñett ñii bu seen pexe jubee Ousmane Sonko du doon président Sénégal candidat sax du ko doon kon Ousmane Sonko il faut mu bàyyi loolu xel génn Ablaye Wade bi dem moo ci mujj ñoom ñëpp li ñuy nas benn la. ñoom famille libérale lañ bokk cinquante ans lañ bëgg a def ci nguur gi ñoo bokk ay croyance ak ay ngëm-ngëm ñoo bokk lobby yanu ne dañuy coow rek mais jotewuñu dara boo gisee Abdoulaye Wade na muy doxale ak Macky Sall 2019 ak tey ji nga xam ne jotewuñu dara dañuy négocier du xool bis bu rafet ni Idrissa Seck ànd ak Macky da ngay xam li xew retrouvaille famille libérale amul ci li ñuy gis mais ñett ñi réerewuñu Ablaye Macky ak kii di Idrissa Seck kon moom na leen maytu bu bëggee booy yi di wéy di am ci moom confiance ba tey yi di ko wóolu parce que li doon weddee yi nitu politique yi parce que ñi ñëpp ci ay protocole de Conakry de Rebeuss ci yooyu la ñuy dox maanaam système bi ngay xeex ñi ñooy système bi ñi ñooy système bi di coow ci kaw di waxtaan ci suuf ñun nag boo gisee ñu baleen fi ñoom ñëpp xale yi baleen fi ñoom ñëpp ne Ousmane la ñu àndal ba lu mu soxla ñu def ko bu leen woowee ci mbedd mi ñu génn lépp lu mu leen woo ñu taxaw ci parce que danoo jàpp ni yamul ak Ablaye Wade danoo jàpp ni yamul ak sa Seck yamul ak Macky Sall mais bu la leeree ñëpp ni ñooñu ak Ousmane Sonko ñoo yam am ñu génn ci Ousmane Sonko kon piège yooyu bu mu ci nangooti di dugg ay dafa feebar da ko seeti woon Ousmane Sonko dund na fu lu ëpp li ay coona teg ci booy seeti ni di nga ko seeti fajar ca këram na maytu Idrissa Seck parce que sa sekk daa am ni ko suñu borom bindee sa Seck boppam rek la naw Idrissa Seck xam lu mu jàppee boppam moom xeer la. ñëpp ay nen lan boo gisee jëlee comme li ñuy faral di wax naan bàyyi mooy xeer doom mooy nen Idrissa Seck noonu lay dundee boo xoolee Yankhoba Diattara ni mu ñëwee ci wetam sukk na ko sama kilifa moom yooyu la bëgg nit ñi di ko dara jàll di ko maanaam moom la Aliou Sow doon wax ministre naanaam Idrissa Seck amul benn sobriété léegi nag nga jël ku mel noonu tey jii xam ne moom il appartient au passé bu doon ni politique tey jii euh, maanaam guddi la moom il appartient au monde du crépuscule nga ñëw bëgg naan day dox tànki jàmm euh, la la wolof yi danga koy faral di wax na leen maytul parce que nag parce que nag seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel di nga Sonko Idrissa sekk mi lépp lu yend ci moom dina fanaani ci président Macky Sall ndaxte fii la recevoir Yankhoba Diattara dem États-Unis ni àndul ci ñetti mandat Idrissa sekk ñu naan day génn ñu xëy si suba sa ñu ne dem na waxtaan ak président Macky Sall soxna yi parti réew mi la ànduloon ñoo ngi doon ndogu ak Macky Sall yow sa noon da nga séq moom ndogu bay ànd ak say jigéen ñu naan ñoom ñaar fi mën ne la calumet de la paix joxante na loxo maslaa nañu Idrissa Seck daa am ku xamul fi muy taxaw ku xamul fi muy taxaw di nga ànd ak moom di dem ñi matuñu mbuus dañuy yàq mbuus kon na tey ci loolu moom usmaan Sonko man ànd dinga ndaje moom ànduma ci tey ànduma ci ëllëg ni nga jàppoon ba mel ni usmaan Sonko bu ko bàyyi te jig na la mooy ñii opposition wuñu ñii dañuy maslaa Macky Sall kii maslaa du opposé ak moom di nga xale yi dëgëral bi ak fulla ji ak fayda ak fit wi ak jom ji la la bëggee wér gore wéetuli ko gore ñii bul mënoon ci yow dara heure bi doo àgg fii kon loolu Ousmane Sonko war na ko xam te xam ni képp ku koy jox ay somnifère ay calmants naan ko tëddal xaar ñu ngi lay lijjanti bu xaaree ñi lijjanti ko mi ngi nax boppam ndaxte ku dégg waxi Abdoulaye Wade démb xam ne loolu li Idrissa Seck maanaam xeer la jàppee boppam ñeneen ñi ay nen xoole xëy te nag li lay wane Idi dafa garaaw ñu xëy ñu ne ci parti réew mi parti réew mi bu Idrissa Seck ay journaux yëpp bind ko. mooy dàq na ñaari ndaw remplacé na diw dugal na diw Yankuba Jatara ñëw na jéggalu nee na ko poste ministre bu boo bëggee sax ma bàyyi tappale yoo xam ne ñoom kese la maanaam ba moom nen la jàppee boppam ci kanamu sa Seck Idrissa sekk jàppee boppam xeer Idrissa sekk moom tamit dafa jàpp ni ay Sonko yëpp ay nen lan moom xeer la moom foofu la teg boppam ci wàllu politique pourtant mooy mais problème mooy sénégalais teguñu ko fa sénégalais teguñu ko fa Ousmane Sonko Idrissa Seck mun la indil dara président Macky Sall moo la gën xam loolu président Macky Sall bi Idrissa ñëwee ci moom dafa taxaw mu ne depuis quinze mois maa ngi waxtaan maa ngi waxtaan ak moom Macky Sall taxaw na léegi ñu Benno Bokk mooy majoritaire ci réew mi léegi boo xoolee li ma am li idi am boo ko boolee léegi Benno Bokk Yaakaar cinq pour cent la maanaam opposition bi quinze pour cent rek la leen jox ñoom Sonko ak yooyu tekkiwuñu dara. dafa jàpp seen ànd mënoon na jur loolu Macky ba mu dalee di ànd ak Idrissa Seck léegi dafa dégringolé maanaam dafa gën a wàcc ci politique maanaam dafa gën a daanu ci politique boo xoolee élection yi mujj a dem di local ak législative ni ci makisal Sall daanu mu ci daanu ci àddina Thiès gi Idrissa Seck teewoon Idrissa Seck ba mu demee ci Macky ak léegi gañewu ko ji nga lan moo am ci diggante Idrissa Seck Macky Sall il faut nit ñi xam loolu mooy Macky Sall yaakaaram dafa tas ci Idrissa Seck parce que dafa jàppoon ne politiquement bu Idrissa Seck ñëwee dina wàññi doole opposition bi mais aussi Idrissa Seck dina ko yokk dara mais Idrissa sekk bi mu ñëwee li Macky Sall doon yaakaar ci Idrissa Seck Idrissa Seck nekku fa fi mu ko tegoon Idrissa Seck nekku fa déception la ci président Macky Sall loolu tax tey ji bu Idi doon dem sax président Macky Sall du ko téye parce que Thiès bi mu yaakaaroon ni kii di Macky dina ko ko indil Idi dina ko ko indil Thiès googu nekkul ci loxoom beneen bi ci topp. ah mooy da gis ni ñu ne kii di Idrissa na yaakaaram lu tax mu tas mooy Idrissa dafa jàppoon ni bu duggee ci président Macky sàll dina dem ko parce que bi muy ñëw dafa ne réew mi dafa am ay problème dinaa ñëw ngir indi ci ay solution moom dafa jàppoon ni moom mooy solution ci problème yu nu tolloon Idrissa Seck ñëw problème yu yokk corona ñëw crise mondiale bi Ukraine bi réew mi dara doxatul lépp na teg mais moom bi muy ñëw dafa jàppoon ni am messi la moo tax wax na ko de bi muy bi mujjee wax nee na maay messi moom bi muy ñëw il se croyait comme un messie mais un messie ça ne se décrète pas ça ne se décrète pas bu dee ni Idrissa Seck messie la kii di Ousmane Sonko am Mbappé la parce que bu dee Messi léegi mu retraité bu dee Benzema léegi mu jeexal bu dee Ronaldo ñoom ñëpp ñu ngi jeexal léegi avenir bi kan la appartenir mooy Mbappé nga bëgg nga bañ Ousmane Sonko kon mooy Mbappé ndaxte avenir bi ak yaakaar bi ci moom la ëppee. tey jii avenir football lu àdduna ak yaakaar bi ci Mbappé la ëppee parce que talaam ak agem kon il faut que Ousmane Sonko tey xam ne mii Ablaye Wade ko Ablaye Wade wax yi mu wax démb lan la mooy sama parti mooy parti bi fi ëpp doole jox ma Ablaye Wade ndaxte di 74 ak tey jii mais ñun tey jii au présent la wax lan la PDS tekki tey jii parce que boobu lan liy ñuy wax dañ koy wax jëmee ci passif naan non sama parti ele euh, maanaam. bi bu musuma bëgg a jël nguur di jaar ci ko ay néew waaye bi ngay génn ci ay néew fukki nit ak benn ñoo faatu ngir sa ñetteelu mandat mu wàdd kun respecté la kun jox cër la kun bëgg la mais nag du duñ fi nekk di nalawal xale yu doog a dugg ci politique bi wala xale yi doog a feeñ ci média yi mais nan wax réellement lan moo xew Abdoulaye Wade de 74 ak 2000 mais ñaata nit ñoo ci loru ci opposition laay Wade affaire maître Babacar Seye fii la ñu fekk ak yeneen yoo xam ne xew na fi ni naan ay kan moo doon wax jël leen fiilu welo yi. xeex ak takk der Ousmane Sonko daa yegg foofu ay voiture piégée yu ñu doon wax ci réew mi Ousmane Sonko dafa yegg foofu ci opposition ci côté xeex rek ci côté fitna rek fi ci Ablaye Wade eggoon na Ousmane Sonko eggu ci pourtant Ablaye Wade xeex na ba jël nguur kon bu ñu bëggee gëmal ni PDS parti la boo xam ne bu pacifique la parti la boo xam ne amul benn violence dafa jot nguur ci jàmm ñi ngi nax wala ñi nax xale yi xamul dara ci histoire politique bu Sénégal mais PDS li ñu dundul ak ñoom ci fitna amul. Abdoulaye waat nag ñëw na jël réew mi def ay réalisation mais jamono da nga ko war a noppal fi mu war a waxee ana Karim Wade bu nu bëggee gëmal naan noonu nan xaar constitution bi kon mooy war a li ñuy wax waa PDS dëgg la dañoo ànd ci troisième mandat nangu ko wax ci kaw lan bàyyi nit nit ñi ni nax projet bi Abdoulaye Wade amul ak yeneem ca la ñu ne mooy cinquante ans ñu jiite ko réew mi mais loolu seen bëgg-bëgg la mais est-ce que bëgg-bëggu sénégalais la seen bëgg-bëgg la. yéen li ngeen bëgg wax ngeen ko jaam ak pexe mais dogalu yàlla leneen la kon il faut que ñu tey da ngay dégg ay nit naan la Karim Wade xam na sénégalais yi est-ce que nalaw nan nalaw gu toll ni jiite Karim Wade tey jii jox nañ ko am na si mun a bañ ne nañ réviser procès mais tey jii bu ñu ko doon bàyyi muy nekk candidat ci yan contexte lay nekkee candidat ñu ne teg nañ ko cent vingt neuf milliards xaw ma mais contrainte par corps alal jooju day ñëw rek nekk candidat du ko fay tey jii ñii ñëpp seen problème mooy Ousmane Sonko ak Pastef ba ci biir Yewwi Askan Wi am na ñu fa ne nekk usman Sonko arrangé wu leen fa Yékini tolloon ci làmb fa la Ousmane Sonko toll boo daanee ñëpp ci ngay ëpp noonu parce que maanaam boo daanee mbër yi ëpp ci arène bi mais seen i supporters du mën a jamono ji ngay doon roi des arènes wala jamono ji ngay mën ñëpp jamono yooyu ci ngay ëpp noonu parce da nga daan ñëpp moo tax ñëpp dañuy bëgg nga daanu foofu la Ousmane Sonko toll. kon dafa war a surveiller ses arrières maytu ak ragal du benn confiance waaye méfiance man ñett ngi nii ci politique ba ci biir Yewwi Askan du ñëpp la war a wóolu parce que Ousmane bu doon yi waa Yewwi Askan mat nañ lu ñu doon ba ñu dem élection mais liste Yewwi Askan day jàll titulaire yi Ousmane Sonko nekk député bu nekkoon député yii yëpp du am parce que day bénéficier wu ci immunité parlementaire kenn du wax di mbiri Adji Sarr kenn du wax di mbiri Mame Mbaye parce que boo gisee ñu naan élection un leader dafa war a nekk député wala dara immunité daa am lu muy jariñ parce que rapport bi ñuy wax ni ci OFNAC mais Abass Fall génne na ko pourquoi topp nañ ko parce que dafa am immunité kon tey jii lii daal Ousmane sonk yëpp tey jii ni mu amee ay soppe ci réew mi ba ñëpp jàpp ni kii c'est l'homme de la situation noonu la bëree ay noon te na ko xam na ko xam te noonu yooyu bu mu xool ci ñi ko gën a sori na xool ci ñi ko gën a jege parce que nit day toll ci niveau boobu day toll ci niveau boobu da ngay egg benn niveau boo xam ne ni ngay wàññee say soppe boo gëstoo noonu ngay gisee say noonu parce que am na ñoo xam ne bu sañoon du ko doon moom kooku du di Ousmane Sonko léegi nag li Ablaye Wade wax lu ci am mooy ne xale yi dem bindu ji ci les électorale yi waaye tamit nanu fexe ba daal mobiliser wu mais loolu xale yi ñu ngi ci mobilisation boobu sax moo indi du ñàkk ni sax moo indi woote bi nu wootee ci procès en appel bi mobilisation boobu du ñàkk ni mu indi loolu parce que loolu tiital na leen parce que boo demee Kër Massar ci gox yi pexe yu ne def nañ ko ngir xale yi ba ñu am carte nan la doon jox la carte d'identité na mënoo wootee ci ginnaaw xale yi ni ñu jugandoo lool mun na tax ñu bëgg leen a divertir mais woo bi ñu woo Ousmane Sonko bu mu tax élan bi ñu ne ñu ba ko chef de quartier yi war a joxe chef de domicile nañ ko joxe ñoom seen yoon nekku ci wàllu politique am na chef de yi ngay dem dañuy jéem xool fan bokk ak foo bokkul loolu aussi c'est à dénoncer. kon bëggoon nañ ci wax bu baax xale yi dem bindu ji teg ci ñu bañ a wóolu ñu yor mbir yi ndaxte élection kenn du ko sàcc bis bisu élection mais avant élection la koy jàpp sàcc di processus beeg yooyu yëpp dinañ ci ñëwaat mbiri Assane Diouf bëggoon naa ci wax mais xaju fii nañ ko libéré parce que man jotoon naa waxtaan ak Assane Diouf jàpp gën ko jàpp bettu ko parce que am na lu mu ci jotoon wax li ñuy ñaan mooy Assane Diouf bu deful dara nañ ko bàyyi. nan ko bàyyi par ay vidéo yoo xam ne def na deux ans ñu te toggaat ko woowaat ko ci bëggu ko téye loolu day tax justice bi naw gin ko nawoon nag mu doon leneen te ñun bu sañoon suñ justice mooy doon justice bi fi gën parce que justice mooy foo xam ne fa la mbaxam ne doone benn mais aussi fa la ñëpp yamee kon libéré Assane Diouf bu dee deful dara nan ko bàyyi ak képp koo xam yaa ngi ci kaso bi suñu xel dem ci Abdou Karim Gueye Cheikh Omar Diagne ak ñeneen ak ñeneen ba ci soxna Amidia Guédiawaye na leen bàyyi réew mi dalaat parce que nag président Macky mënoo woote dialogue ba pare jël juróomi téeméer ci doomi sénégalais yi téye ci kaso ba pare nan waxtaan mënoo di waxtaan ba pare yor yat bi ne da dóoree kon mbokk yi kon temps bi moo nu dab mais beneen yoon mbiri Assane Diouf dinañ ci ñëw dina ñëw ci xale yi bindu mais aussi tamit dina ñëw ci arrestation yi bari ak yeneen yoo xam ne parce que mbiru bindu bi yu bari bëgg naa ko ci wax mais mi ngi noonu kon euh, di ñaan ci réew mi jàmm di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu El Hadj Modou Diouf ak euh, son bu topp Ablaye Omar bun Xattaab gee nekkoon ci kàddu gi euh, kon euh, solution info tv mën ngeen di mu mais aussi tamit di seetaan suñu vidéo di emee mais aussi tamit di commentaire loolu aussi tamit da ciy baax di partager aussi ngir mu gën a yaatu mbokk yi di ñaanal ñëpp jàmm semaine prochaine du ñàkk ni day laal korité gi di ñaanal ñëpp feetuk jàmm ak koor jàmm jërë ngeen jëf